هنا من عبد الله فاق كل من عبداه أن يبدي خالق الزمن هنا من عبد الله فاق كل من عبداه أن يبدي خالق الزمن هنا من عبد الله فاق باغ ولا بتاخ lii lépp mooy nu nu def waa kër borom Touba deful nu daan fas ta dun mbaam dun gëléem xalamal te sant buur yàlla santaat nag borom tuuba la xalqu sama samawaateek walar di ndaxam akbaru min xalqi naasin yéem na ñooñ tuuba lim def nga doon ko kawem ngaa tax mu naa wala xat mag naa karam naa ba bani aadam borom tuuba lii kat yemoo ca ndëdëb yéefër te weddiwuloo xanaa mu def la ko yiw kuy gëm borom tuuba réyoo ku gëm Bàmba doo rëy yàlla moo ko jago nga dellu mu ci rëy santal borom Tuuba boo xalamee nag yi ak xar ak bëyëg lu mu doon ngay rey di lekk te doo bàkkaaru yéem Tuuba boo seetlu woon dëgg loo gis gis ca yàlla bu wér di teewlu màggam gi ak màggug borom Tuuba amam gi moo tàmbalewul fenn nag te yemul booleeg di jëf lu ko soob may kun borom Tuuba lii kun fa yëkkoonu aji leer na nañ ndaxam ndemoo ko moom yow mi gëm yàlla la sëñ Tuuba amal la jàmmal la fiixal may la leer ci sa xol muy leeru gëm yàlla yonen beeg borom Tuuba amma bi nihmati rabbil arsi te mooy di waxtaane xéewal gii di sëñ Tuuba amma bi nihmati rabbil arsi fadis te mooy di waxtaane xéewal gi di sëñ tuubaa layin sakartum lu lay tee sant ngir la ca des booy sant ñuy dolli santal seex bi moom tuubaa mooy kala tànnoon gannaaw tànnuk ngir bëgg laa gannaaw tànnuk yonent ci azal ci yërmandeem bëgg laa jox kër ëllëg tuubaa yàlla mi def yéefar ba mu koy def asal judduwuñ soo def jullit di murit santal borom tuubaa nun daal dañuy sant seex bàmbaa ka jëf ci ndigal di jéem a jub ci siraat mooy yoon wu jëm tuubaa auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim yowma naddoxoo kulli unaasi bi imaamihim waaye nañ araf yi ngir tënke ko imaamu na cheikh ahmadou bamba alayhi akbar ridwanullahi bahil xadim yaakaar ju dul tas da ngay yaakaar ku yaakaaru maami sëriñ Mbàkke Madina fi yaakaaru yaakaar ju dul tas da ngay yaakaar ku yaakaaru Seex Bamba mooy kiñ fi yaakaar moo fi yaakaaru yaakaar ju dul tas da ngay ku yaakaaru borom tubaa lañ fi yaakaar moo fi yaakaaru yaakaar ju dul tas dangay yaakaar ku yaakaaru seexul xaddiim lañ fi yaakaar moo fi yaakaaru wa yow ma bis ba nu naa yowmal xiyaami ndaxam misaal mi feeñ na ci duniyaa kenn du muxtaaru moom rekk mooy ki si gël lislaam ci ji jamono notal na lislaam ña doon bañ moo di xëhëru nun ñépp santanu war ngir juddu giñ ci juddu maam yaag suñuy baay dañoo fekkoon ñu yaakaaru nun ñëpp santanu war ngir juddu giñ ci juddu maam yaag suñuy baay dañoo fekkoon ñu yaakaaru deret la tuurul dammul nit alkewul du mbiram kënoom nga mooy xalimaam moo dàq fu jaaru aarif yi xam nañ ne déew seen nawle feek fanu jëm yowmal xiyaam bañ la séenee ñëpp a farwaaru aarif ya xam nañ ne doo seen nawle feek fa nu jëm yowmal xiyaam bañ la séenee ñëpp farwaaru waykat ya daa way nabi say waya tax ñu wedam bisu keroog say bayit ñooy jolli takkaraaru aljanna say xasidaa fay mbégte moom la jigéen ña dajaloo di sikar bul weddi bàkkaaru keroog larilwaan tëjil seex bàmba aljana ya maliku tëj mboole seen wuntam ya diinaaru lam wax la kenn mus wax lam jëf la kenn jëful kon moo yeyoo am lu dee fu lam fa jabbaaru lam wax la kenn mus wax lam jëf la kenn jëful kon moo yeyoo am lu dee fu lam fa jabbaaru lislaam ji moo ko fi yasal ñëpp a ngi julli tey delloo ko njukkala war ngir moo di jàmbaaru al yawma akmaltu lakum diine yow la waxal ngir yaa fi feddali diine ileehi xaraaru nasiir nga boole xadiir buur yàlla moo la ko may amoo moroom noon yi xam nañ yaa di xëhëru óot yamaamata xàndax xaybar ak bëdërin seen faya yow lan ko jox ngay fay ku jàmbaaru sunu njaboot ak ak waajur ya ak lu na def nañ ko àddiya ngir yéen rekk a jàmbaaru billaahi wallaahi law la sàkka seexu ndagam xamtil fu jëm keroog ngir mbir yu doy waaru billaahi wallaahi law laa sàkka seexu ndagam xamtil fu nuy jëm keroog ngir mbir yu doy waaru alhamdulillahi rabbil aalamiina na xam kuñ moom bis ba féexal am nga waaru moom rek mooy ki fi quraanu ak jawar ci bind ak jàng ak sàkkal ko ay daaru إمامنا وإمام العارفين بالله والقوس والقطب والأغيار أغيار مهروف جيلاني والبصام تيفور ثم القسالي yaay seen mbir ma doy waaru ay wu am yaa ko fay Makka ak Madiina fu mu jommal sërif yi demal laaj ëhlu gànnaaru maa ngi taxawlu di ñaan buur yàlla am sa ngërëm sun kuy jullit dun yaa ma way ka ab deram lal géej ba julli mu mat te ba xiblab sëriñ saa ngi ma way ka géej ba julli mu mat xablawul xiblab sëriñ saa ngi ku sëriñ bamba bu jullee sax ci déeg dina diig bu deeg sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi ku sëriñ bii bu jullee sax ci déeg dina diig bu deeg sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi kii sax ci daaraam la génne ibra faati saak ak ibra ak borom gaawaan mbërëm yaa ngi kii sax ci daaraam la génne ibra faati saak faal ak borom gaawaan mbërëm yaa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bii duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seere yi jëfam yaa ngi dëkkam bii moo mag jumaam ji mag am ngërëm gën a mag magam ñu naa ko magum mag sëñ bu mag baa ngi dëkkam bi moo mag jumaam mag am ngërëm gën a mag magam ñu naa ko magum mag sëñ bu mag baa ngi nangul na yàlla nangul yeneen ba nangu na nit ñi ñëpp nag ci nangoom gi njiit lu mat laa ngi loo sopp loolee da far soppi sopp na nag yàlla ak yeneen ba ñu daal koy soppi may yaa ngi budul ko nag bàmba afrig gépp jaamu xërëm moo raadu lislaam ji tey jaa gii dugub yaa ngi banoon noonu yàlla yi ne Afrique bu kenn sa xët bambaani déedéet ku moom noppi mbër maa ngi daa def na yonen ba def daa mujj woote te gën aw nit sëriñ bàmba yit lee tax mu jëm gaa ngi tubaab bi nag bu njëkkee woon sëñ bi kenn du xam jàmbaar yi ak ñii fi doon yëfu standard jaa ngi keroog ba ñuy siñe tey siiñ na allahu du buur bàmbaani allahu akbar yàlla buur baa ngi numéro 4 la Muhammad it araf ya di 4 wallahu yansimu kuy laaj kooka tey maa ngi ne sayam wi yenu tey seytaane yi bëgg a far ngërëm mii maa bañ danaa waat wàcc waat gaa ngi billaahi wallaahi su mu safa ak ñi ko roy danaa ko dundal dandal caaxaan yi gorsaa ngi billaahi wallaahi su mu safa ak ñi ko roy danaa ko dundal dandal caaxaan yi gorsaa ngi mu samp ndëndam nee mooy lislaam ji waaju ko fil ci lay mujjee file samp bi yàlla buur baa ngi ku ñam la sëñ jam-jam ya jam yaramam ku daj la jam-jam jam yaramam mbaa mu faatu ku naw sa mbër tubaab baa ngi ku daj la bàmba daj jam-jam ya jam yaramam mbaa sax mu faatu ku naw sa mbër tubaab baa ngi moom rek a tubaab bii nag lu mat ati at te attewuñ ko te woowul wallu njool maa ngi te yoqiwul te yoqul derba saalitulit te yokkatul yuuxuwul kaamil bu mat baa ngi mboolem ku tubaab bi wetti ngaw ñaq nag moom nag mu roo foog tubaab bi fët ko mbër maa ngi mboolem ku léew toog tubaab bi ngaw ñaq nag moom nag mu tubaab bi fët ko mbër maa ngi sëñ Bàmba nag dafa songoog noonu yàlla yàpp diir nag bu yàgg te juumul mbër mu mag maa ngi sëñ Bàmba dafa songoog noonu yàlla ab diir nag bu yàgg te juumul mbër mu mag maa ngi maa yomba yombu dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaan ni gaa njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaali wu ñuy bokkam du seen màppandoo nii leen ko maam yaa ngi ku dem ba dawme damoo déewoo rafoo tadawoo yow sun nga ñépp salaan ngeen ron gu gaa ngi nasraan bi nag lu mu nas yow bamba nocc nga ko nasru yi jox sabaroom nii leen biddiw baa ngi bu dul ko nag bàmba afrique gépp jaamu xërëm yow weer nga naa feq yi bañ weeru weer waa ngi bambaa fi leeral li leen wannu lépp njariñ mooy jantum njolloor bu daj gox yëpp buj baa ngi ba muy lewaatoog tubaab bi noonam yëpp di re di seen tujëllam yaakaar ju tas jaa ngi ba muy lewaatoog tubaab bi noonu yëpp di re di seen tujëllam ba seen yaakaar ju tas jaa ngi bam ñu bisee ñu ne kon waa réew mi yéen a ci des ko am pexem lor na wax neexal bu dun baa ngi noonam yëpp daa di jógaat ñoom ñëpp nag lëkkaloo ànd ak tubaab bi lu waaye xam wax ko dof yaa ngi seex bamba jël laxasaa yu muñ ne fii ci ndiggam diggam boroomam di kañ soppeem ba gor saa ngi ñu yóbbu la jar yéem nag ca booba barab ma leen di ree te xamuñ reetaan ya way yaa ngi raamu ma siir yi ilaa njurbel la daa àll sa sin lama yenoo la mu fay am fam mu réer gaa ngi ñu jël jolof jal ko far moom nag mu jël fa jolof mboolem lu doon doomi soxna ak cedd coow laa ngi ñu sangu gànnaar ne ay nit nag ñu weex du ñu gëm ku ñuul ñu far defi ndiiraan naa sëriñ baa ngi fekkoon na it dellu woon na ndar ku nekk di dar gémmiñ ganaa kii fi jaaroon mbër mu réy maa ngi ñu àgg foog ni dafay tiit nag mu sànni deram julli farakaam ya septembre ju ndar jaa ngi ci biir gouvernance gouverneur jaaxle naa ki dagam ñoo wax ne nañ delluwaat njaareem ngëlam laa ngi man de yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu daal koy ful lu doon laa ngi yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar defar mbooloo loo jëf ñu daal koy ful doon laa ngi naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar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 danaan ko yàkkaw li koo kay séentu gaa ngi nii bi siir yi di mel nit ñëpp ñëpp di bég bisam bi saa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi woona la wuy yàlla moo ko defal mu am lu dul jeex talaa biir wuy raw gaa ngi Cheikh Abdoulaat nan na am nay gaa yu wér yu dëggal yoo xam ne doonte dañuy dox ñëw ñu ñaw ñaa ngi ndigal yi nag ñaara ngi yoo xam ne moom la bëggoon mooy màggalam géeg jumaa ji yaari yëf yaa ngi jumaa ji nag jëmm jay mat waaye col gi du mat te mbubb sax dañu koy fóot yeesalam gaa ngi jumaa ji nag léegi bi mu yeggee ndigal li fi des màggal gi rek a fi sës màggal gu gaa ngi màggal gi nag dafa làmboo dëkk beeg li ko wër ak fépp fub jullikat ne yaatanam gaa ngi Europe Asie Amérique Afrique fu nit mën ne nay jàng téere bi ak addis ndigal laa ngi sëñ Bàmba foog xasaayid yépp daal dëxëñ addis ak téere bi yombal la mbir maa ngi jëlal xasaayid yi yow loo man durus danga am yoolu ko wàcce limub kaamil lu laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool lay wax ki man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi yépp nag benn boo man rekk rek la wax ko alxuraan faat sikkar yi it faat ko dab gaa ngi màggal gii ngay dabe mboolem yool ba amoon tem la yow mii nga doon dab jiitu muur maa ngi màggal gi ngay dabe mboolem yool ba amoon tem raw la yow mii nga doon dab jiitu muur maa ngi kon nag ku am yoolu màggal gii lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu neex laa ngi jataayu sëñ bamba bee muy ne akub yeneenam ku bëgg teew na nga teew màggal si njëg laa ngi ku mun la teew na nga jël aslëf te def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaa ngi loo def ci màggal gi sëñ bamba ngi gis ta du xeeb loo yéene yi dana xam bul wax lu néew laa ngi loo def ci màggal gi sëñ bàmbaa ngi gis ta du xeeb loo yéene yi dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul jéemal déwén jaa ngi nun gaa yi sëriñ tuubaa ci biir dëkk bi lansaar yi kat bu nu yóbbul lenn muñ gaa ngi lansaar yi mooy nun ñi am fii kër te gan ñi di ñëw yonen ba wax na lu wér ci gan addis baa ngi man kaana yominu kon gan ñi nañ leen di taral yonen ba lii lanu wax toppal ndigal laa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xiif di kaf di ree belli moo gën bernde mbég maa ngi waykat ba nee na lu gan gi maanu maanu du tee buy dem di nettali la mu gis moytu xas waa ngi nëbbal sa jikko te jikko yiw te nëbbu sa mer bu mar te bu mer te it nay maar yoon waa ngi sagan bu yegsee ne moom daa sonn na ko wutal fu yaatu mu soonu fa yow féexal ko ndam laa ngi gan dee ko jox soow te bu koy soow tebul ñagasal saxar kanam kon bu delloo naw la mbig maa ngi te bul jëkkanteeg sa gan gii sangu baak sukku ba gan mën la génn di xaaraan ne ko ndab laa ngi buy lekk it bu ko booleeg jëmm yooyu xamu leen bu dee borom kersa day rusuur te lor jaa ngi bul gëdde bul xasse bul dóor donte day gone sax ci teewu gan gii da koy rusuloo ndigal laa ngi sàggan ba sàggan déwén buy del siwaat du xalaat dalaat sa kër te nga ne tuubaa lu ñaaw laa ngi sëñ ba baaxe la may la kër gu yaane fayax mu am ganam ñii bu leen merloo lu sew laa ngi sàggan ba sàggan déwén buy del siwaat du xalaat dalaat sa kër tanga ne tuubaa lu ñaaw laa ngi yow gan gi bul nekk gangal nit ku def la mu man ba jeex ca tàkk nga koy ñaan paas lu soof laa ngi sëriñ bi fàgguna laajul kenn lu mu bëgg di jox nit na doon lu man ndigal laa ngi yonent bay dafa wax ne addiyaafatu nag salaasatun ñetti fan mooy ngan waxam jaa ngi ku dal ci kër gu ne war naa fonk kër ga mu dal ngir bu muy dal ko roy gaa ngi ku dal ci kër gu war naa fonk kër ga mu dal ngir picc sax car bu muy dal naw ko roy gaa ngi liggéey bu jotee àndal ak ñoom liggéey la nga man sa wërsëgit bu ko génnee kër ga xel maa ngi saaboo sangoo génn duy say poos mu fees nga ne fes boo del siwaatee di laaj gàtt xel gaa ngi siyaare war na la kenn néewul bu leen ko defit ndegam dangay joxe dal di waat ko soof gaa ngi kii teeru am na lu war kañ teeru am lu ko war ku wàcc war war ya def gaa ngi kii am na lu war am lu ko war ku wàcc war war ya ñaax gaa ngi ñëwal te sëñ bi di tax teerul te sëñ bi di tax kon ñaari tax yii bu ciy toj sooxe ñaax gaa ngi gan ñépp yàlla nañu am màggal te dëkk yam ñu bég nu bég sëñ bi bég yàllaat mbégam maa ngi addi sëriñ ma Madina